jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop euh, jërë ngeen jëf Yacine Pouy maa ngi lay kontaane internet ak euh, auditeurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen journal de faits divers xalaas maa ngi leen di bëggee ba tey di ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ak Passepartout indilaat leen yeneen xalaas yoo xam ni ne USPEC lay doon Ndiaye maa ngi lay siyaar. maa ngi lay delloo siyaar gi Ababacar bu baax a baax a baax di nuyu Passepartout di nuyu waa Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen ñaanal tawféex sutura teraanga ak wér nag surtout. Mhm. day lu am solo. solo. Mhm. day siyaar bu baax paas. noo def. maa ngi sant bu baax. ñu def ak coono yi sant sama sama sama sama sama mag yu baax yi. Mhm. ayca na yàlla. insécurité totale. lii fu mu amee lii lii na ma trop. kii dafa jógee voyage démb. ay mhm. vingt am lu mu gis ci kaw tali lu mu gis. waaw déglu ko. man dama jóge voyage. vers vingt bi may génn autoroute à péage. Euh, niveau euh, Padois. Euh, mooy axe bi tourné pour dem Maria Niass li ma gis dafa dafa yéeme dafa yéeme et puis ça m'a interpellé alors euh, j'ai vu des gens armés de machettes nit ñi toog ci seen biir oto ñu leen di forcer di leen agresser amul benn sécurité même même de la lumière sax amu fa man fi ma toog sama oto jël naa sama téléphone composé numéro de la gendarmerie alors je j'ai donné l'alerte alors je pense que aussi il faut que nous wax et puis nous alerter la police et la gendarmerie à des heures sortie beaucoup, li commencé à euh, sortir ak sortie bi génn autour de la ba BEMG, donc bouchon extraordinaire. Il n'y a pas de lumière les gens je sais, ni si, di mais c'est extraordinaire c'est vraiment insolite c'est comme si nous étions dans le Far West quoi ah, étant sénégalais un citoyen

par ci pont Sénégal 92 bi mo am buntu Pikine té chaque jour ñu wax ko ñay mo am ci autoroute bu bees bi ñu def ci yoonu geej gi mu rom dañ ko patrouille moy ci moy ci ki bi moy ci. Euh, foofu gën bi dañ koy barré prolongement bi. ñay mhm. li pat patrouille chaque goudi sax dafa dafa da war a am. té li ma leen wax fi rek gis nga ban da ko doon wax ñu naan dafa sadik wi yaru soldat la yor dugg na fii génn mm. fi mais neexu ta wéddi agresseur bo fi japp mo agressé nit ba gañ ko ba mu ray ko. nga dagg benn loxo bi bàyyi ko beneen dana tal leneen après nag boo ko fi defee yeneen problème lay jur pendant ce temps nit ñi ñi ngi dee. Mhm. ñi seenu fit du toog xam nga ne kii doon nettali lii mu gis li leer boo mooy heure boobu dootu fa jaarati. waaw ah te am na ñeneen ñu ko dund faaw ñu taxaw ci police gi liggéey gendarmerie ngi liggéey nit ñee ngi def lu ñu mën. ay li ñuy wax ni dee leen dénoncé. Mm-hmm. collaborer leen ak waa police gaa ñu juguñu ci. mais problème bi mooy li fekk sanction yi diisul di jàpp nit ñi leen di leen bàyyi mardi. lii du ci jóg. lii du ci jóg te li may wax nii gendarmerie police xam nañu ko. Amadou Naam Mbengue la tudd. lu mu defati. benn benn waay la jaay terrain jël terrain bi jaay ko keneen. mooy waa jox na onance day liggéey. waaw hmm. boobu noonu. Hmm. moo benn waay terrain jël bi jaay ko keneen. ay jox ko ay ay photocopie ne ko original dañoo réer ndekete original bi jaay na ko keneen. jàpp nañ ko. ba tey. moom mi du ragal de. déglu. ayca man ak moom li ñu xamante benn grand muy ma présenté léegi ba mu ko présenté nag moom mu ñëw mu ne ma day jaay terrain quoi parce que lu tax muy jaay terrain bi yaayam da feebar feebaru xol daal moom la feebar dafa sonn léegi manit mag ma yërëm ko si loolu ak ni mu ko expliqué ba pare mu ne yaay ji dafa bokkoon ci ay nat natt yoo xamante ne ay millions la woon léegi ñuy teggi natt yi daw ak xaalis léegi nag yaay ji tamit ñu koy woo ci yoon muy dem ay tribunal te dafa feebar léegi nag ma yërëm ko si loolu moom mu ñëw nag mu war yóbbu si terrain léegi mën na dama koy jaay million deux cent cinquante mille day faji yaayam fayaaleel ko ay borom ma ne nag moo dindi million deux cent cinquante mille ma ko joxee un million compte cent cinquante mille bi moom nag si boppam ndekete terrain bi daa am keneen ku mu ko jaay ba mu koy jaay moom mu ñëw mu ne ma dañoo réer si benn waay daal mu mu réeree oto otowaay yi mu ñëw déclaré mu ne kii tamit dañoo réer léegi moom photocopie yi la yor léegi ba mu ne photocopie ñu mu dem mairie déclaré ko demaat gendarmerie dem jamñaaji tamit déclaré ko kayit yi ne kayit original yi dañaa réer mais su ko gisee tamit léegi euh, dina ma joxaat yi bi ñu dem bu mairie après mu bind acte de vente bi après ma fay ko xaalisam pour mu dem faji yaayam mu fayale ay borom ndekete yoo daf ko jaay keneen ku dëkk Dakar léegi ba mu ñëw ci terrain bi mu dajak ak waaji foofu waaji tamit mu ne ma man amandaar mbenga moo ma jaay terrain bi man ni ma ne pourtant man man ni daf ma ko jaay parce que nee na yaayam dafa feebar da koy faj fay ay borom ci biir loolu nag ñu dem ba Dakar fekk taxu fu mu luy wu dégg nga ko njaay mu ne kenn ki da ngay ñàkk envoyé nañu appel boo xam ne waa ji loon waxal mais comme bon appel enregistré te xëy na amuñu droit kii ko. mais mi ngi naan ko carrément man maa la jaay terrain bi maa ko jaay keneen ki léegi nag il faut kenn ñàkk see ñaar. <laughs> numéro am aussi numéro am aussi woote naa ci mais jàll. mais waaj ji lu mu takk. ñun ah, xam nga lu mu takk mais du de. ñun nekk ñu ay booru. céréale la <laughs> woon. aba aba ñun nañ nañu sant yàlla bu baax. yéen ñaar ñëpp laa nañ sant yàlla man yenn yi su ma déggee ñu naan nit def na ko. li may njëkk laaj mooy ndax kii nit la. <laughs> xoolal ma bii àq. ba tey Afrique centrale. kii neexul man ñeen ñaar laaj jaay mais kenn kay ñàkk. mais am na lu mu doon wax sànq ñu dagg ko nit ñaa ngi laaj lan la lan la lan la nañ ko bàyyi mais dafa am ñoo xamante ne ji seen i mbir jarut a wax ci rajo ki télé ndax duñu exemple. Ah. benn waaye bu ñu tëjoon kaso ñëpp xam nañ ko mu yàgg ci kaso lool. Mhm. ci liñ wax dafa dem Rufisque di ñu jàpp ko dóor ko bu muy bëgg a dee. wala ca dàngu ca dàngu. waaw ah. donc ci di ci wax sax ñenn ñi dañ di jàppee héros. Mhm. yow nga yàq sa temps. parce xam nga ku yoon téye ba mu yàgg mun na ko yow amalatoo ñu njariñ. Mhm. génne ko. kooku je pense toog di wax ci ay waxam sax amul sens. d'accord naa de. mais nag Ndiaye du ñu leeralal nit ñi ne parfois dañuy toogaat ne bàyyi nañ réccu nañ nangam ak sangam après ñoo ci euh, ñoom ñoo ci demaat pour nit ñi xàmmee mmh. euh, ñi nga xam ne ñooy wax lu am ak ñi nga xam ne waxuñu lu am loolu tamit am na ci daal en tout cas daal ku ne sa bopp dalaa doy koo war a gëm da bañ a gëm keneen ci ay wax merci beaucoup c'est très important merci beaucoup dégg naa dëgg de nañ dem fan laaj nga ne fan nga nekk nga ne Centrafrique nga doon laaj waaw Ousmane mii de mooy ki ñu wax de mu Ndiaye waaw waaw nekk borom portable waaw non non non euh, borom portable yi mhm. woote na nee na mhm. nañ ko may tey dina woo ñu mu yoral ñëpp wax ak ñoom ku ci nekk mu wax la kañ la lay fay. Mhm. donc nag nee na nañ nañ nañ stand affaire bi. ko tontu yow. ah man nee naa maa ngi lay déglu. Ah. maa ngi lay déglu déglu say Ousmane mi tam la nekk. Ousmane waa ji dem di jënd ay bagages ñu ñaañu daje fa. mu xàmme lu ko ko ni ko yow seen buntu kër parking ba fa nekk fa laa doon nekk xam naa sa yaay xam naa sa papa ñu jàmm sant comme sénégalais rek mënu ko foo dal hôtel mënu ko dee mënu ko hôtel laa dal waaj na ko noonu duma la bàyyi ngay dem hôtel kan dem sama kër ñu dem këram dal fa ñoom ñaar waaye dem jënd ay bagage am yu mu war a indi Sénégal jëndaale benn oto ci benn naar léegi nag comme Ousmane moom chauffeur la te chauffeur dañu leen di ñu indi oto yi. Mhm. waa ji jox Ousmane chauffeur bi fay ko 336000. ak bagage mu jëndone valeur 6 millions. pour mu dawalé auto bi Maroc andi ko Sénégal Maroc mhm. andi ko Sénégal. mom mu jël vol. léegi dañu waran daje ñom ñaar waa dafay jël vol wàcc Mauritanie ñom ñaar ñu dajé Rosso am ci auto bi ñew Ousmane départ auto bi jël ci ñaari client jëm na shot. kay jël vol. ñëw ba Rosso woko Ousmane nako dama toj pneu mu ne ko maa ngi Rosso Ousmane nako demal nako indi Sénégal xamna sa place Liberté 6 waaj na d'accord Ousmane wàccee bagage yi sa def ci benn auto jaay oto bi dab yoonam. oto bi ko waa jëndile woon senegal la jaay. waaw ana bagage yi. bagage yi moom changé na ko yóbbuwaat na yóbbu na bagage yi. kon lépp la yóbbu. te waa joxoon na ko bagage yeeg fay ko dédouanement oto beeg lépp bu mu waroon fay yëpp tout déchargé oto bi ci turam Ousmane nee na fes ak bagage yi. ki wax ni mooy kan moom. mooy borom oto bi. dañ ko déglu déglu cheikh bi ki daal affaire yi xam nga nu mu demee dañoo man ak moom marok moom sunu kër dafa am parking bu nekk foofu xayra touba foofu la fa jaay ay la ma xam sama yaay xam sama mbokk biñ marok man ak moom mu ko man xaw ma ko bi ma ko ko expliqué ma wax ma sunu kër wax ñoo ñëppam ma ko waa wax nga dëgg yow de xam nga ma mu ma léegi fan nga jëm nii dama fay ñëw mais damay jënd bagage mu ma fan nga dal xarit la am seen kër li ma def ci fa daan lekk fa daan defal dëkk la ngay dem di dal ci hôtel kañ dal sama kër ma gëm ko ànd ak dal nekk moom chaque jour ñooy ànd ñooy tëddandoo lekkandoo naanandoo ba ma dem commandé samay bagage ñu xaarloo cinq jours pour bagage yi pare ci usine bi man ak ko lii de rafet na da problème kon bàyyil ma jënd ko ñu yóbbaale ko te comme moom chauffeur la papaam chauffeur la ay magam chauffeur la ñëpp chauffeur lañ wóolu ko laaj ñaata lañu fay pour yóbbu Sénégal ñu ne ma 350 000 400 000 yooyu la ñu fay bon ñu waxaalee man ak moom ba 336 000 bon ma jox naar bi avance bi ñëwee frontière naar bi woo ma restant bu des ma envoyé ko ko lu des mu ne ko léegi oto bi comme yaag Ousmane yéen a ànd te man damay jël vol te moom mooy jaar yoon suuf bi léegi décharger ko ci passeport am mu décharger ko ci turam def ko lépp après naar bi moom départ dem léegi jox ko oto bi mu kon nekk moom léegi fekk boobu oto bi saasa nañ ci bagage yeeg lépp comme ni ma la ko envoyé mu dem ñu boole woon ko ñaari client client yi euh, noisot lañ jëmoon man bi ma wàccee noisot ay 1 h 45 ma mu ne na noonu nga ma foofu laa nekk mu ne ma fa ñëw foofu fekk la fa ak oto beeg yëpp xaalisu dédouanement bi envoyé ma ko yëpp ma envoyé ko lépp 400 paires ak ay jàllaa ak ay ay affaire yóbbante yi nga xam ne si ay yóbbante jàmbur la yoo xam ne lépp dafa nekk ci biir man daal bu ma calculé xaalis bi lépp lépp lépp valeur 6 laa ci jàpp xam naa ne donte ëpp na loolu mais loolu maa ngi facture maa ngi lépp oto bi bi ñëwee ba ba Rosso mi ngi ma million de 1 million 160 mille BMW la BM boobu nag la jaay bi mu ko jaayee foofu jël bagage yi ko ci beneen oto dem ak bi ma xoolee xam ne bloqué na ma rek dama wootee

moom mi jënd oto bi pelante naa ko pelante naa Ousmane Gueye mi nga xam ne si ne moo jaay sama oto jël samay bagage dem ak moom ma nga noonu de. moom Ousmane ko rey wala moo rey boppam. ah. yaakaar man moo rey boppam nag de. ah mais genn genn lu gi nag ak lu mu la mën di wax. Hmm. Euh, seen garage laa doon fowee seen parking laa nekkoon ak comme yoo xam ne dal. Hmm. da nga ciy ñaaw njort. ah loolu rek koy lijjanti.